excellency Madam Fatma Barrow, the new Minister of Interior, uh, honorable Ousmane Sonko uh, moom nag soo leen paree ngeen dajale palaat yëpp jox ko Sofokunda bi <laughs> sorry honorable Sonko boo paree ngeen jox ko palaat yëpp uh, ñu ngi nuyu suñ frère di ministre maire de Fatick directeur de cabinet Di kasih di semua roda macam apa eh, di penjajah file memakai lagi sembijang di Senegal yep. Kami nanti cek cungguan sila aksi. Wah mungkin orang tua mau wanerek far lebih am far lebih far berdua banjul dan kami mau lebih jarak. Yep yang kami ini sudah dapat di ambasado Senegal mereka di sebelum kurba absen. Mami tahu news CDS eh, General Champ. kii nga xam ne nii tey daanaka mu jiite li nga xam ne ni moo ñu fi andi tey di Mr Moussa Cissé di président USGAG ak képp koo xam ne ni yaa ngi fi ñu ngi laa nii bu baax a baax man nag su ma vidéo gudda bu baax parce que xam nañ ne guddi na waaye bëgg nañoo gërëm ñëpp gërëm këpp koo xam ne nii bokk nga ci association bi di sport journalist association si liggéey bu rafet bi nga xam ne nii moom ngeen di def ci réew mi ci at yi passé waaye rawatina ko si ñaari at yi nga xam ne nii moom lañ passé euh, depuis bi ñu ñëwee fii two years ago 2021 amoon di 11th edition euh, award night bi tey ñuy def di 12 edition te comme ni ko waxee two years ago xool bi nii la meloon feesoon na waaye tey tamit gis nañu di same association members yi ñu ngi fi waaye tamit ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen nominate ñu ngi fi Euh, kuy win ak ku winut ku ñoo awoon tey ku ñu awoon as far as bokk nga si li ñoo ñu select pour ne yéen nekk the best ndax the best euh, foreign based athlete la wala local based athlete la anyone ki nga xam ne nominate nañ la ñu laa congratulate bu baax a baax euh, di leen ñaanal di ñaan tamit liggéey bi nga xam ne ni moom lañ nekk ci wàllu sport pour loolu continue waaye yaakaar nañu ñëpp xam nañ ne liggéey journaliste liggéey bu métti la comme ni ko oncle Pape sa di bii jamono ñun bu ñoo nekk xale ñoom ñu ngi cee liggéey ba yàlla def léegi ñu mag xaandoo ba ci génération from one to another ba tey ñi war a am ki mel nii Moussa muy jiite Sport Journalist Association waxoon na ma li mu wax ñëpp laa la mu wax ma ni tamit mais dafa bëgg a bàyyi xaandoo ba tu yow nga génération waaye wax naa ko ci téléphone ne ko waxtu bi jotagul pour mu bàyyi daal li tax ñuy wax loolu nag mooy de euh, xam nga fii la rek euh, xëy na suñu réew mi ak ñu mel la boo defi ne ñu naan yàgg na ci place bi na bàyyi wala mën na na bàyyi waaye nit koo xam ne ni yàgg nga ci place te yaa ngi liggéey li nga xam ne ni moom moo la war yaa ngi koo def ñun lu ñoo bëgg a mooy pour nga continuer toog foofu parce que liggéey moo tax du ne rek ku nekk mun na ko amee bu keneen ñëwee te mun ta def lu keneen di def tamit association bi dafa dellu gannaaw soo Mister Ceesay ñu ngi laa tas pour nga bëggee bàyyi tamit yokkal yeneen ñaari at rek bu boobaa xëy na boo bëggee bàyyi dinañ ko seetaan waaye ko daal naa ñu ngi laa sos nga continuer liggéey bi ak ñi nga xam ne ni ñoo ñi nga àndal ci seen exécutif parce que tey di sawar pour def dara dafa fekk ñi nga xam ne ni ñoo ngi private sector ñu ngi koo wax jaajëf ci li nga liggéey ñu ngi koo jarama ci li moo liggéey loolu mooy tax kooku sawar waaye loolu tamit mooy tax pour moo nekk ak motivation pour ñeneen ñi nga xam ne ni ñoo ko gën a suufee ñoo gën a nekk ci suuf su ko defee ñu xam ne bu kii demee ba toolu fenn ba war a am national award bu mel ni comme bii bi ñoo receive tey keneen ak keneen ak keneen nañ ko am waaye du am ko rek ngir da nga xamante nit waaye da nga koo am ngir da ko yelloo parce que da nga liggéey ba nit ñi gis ne li nga liggéey rafet na ñu oola jox la award boo xam ne nii daf laa surprise kenn si su ko risi wax na ma loolu démb la ne xaw ma sax lan laa def ba ñu maa nominé ma ne ko xëy na yow xamuloo li ngaa def waaye ñun ñu nekk di la seetaan xam nañ ne def nga liggéey bu rafet ci biir réew mi fii ci at yi passé waaye ñaari at yi liggéey bu rafet lañ fi def ci jàppale ndaw ñi pour sport bi gën a pro so loolu moo tax ñu wax ne rek euh, ñu ngi congratulate everybody well of course euh, suñu brother Matar euh, Matar Ba fu mu jaar ñu gërëm bu baax parce que li mu wax dëgg la euh, ñëwoon na fii ak yële passé fekk man nekkuma ministre two years ago ak ñaari ñaari at yi passé mënutoon a ñëw waaye ebal na délégation bu topp ñu ñëw fekkee ci award bi this year ñu waxaat ñu ne confirm na ne dina ñëw te ñëwul moom kenn waaye ñëw na ak délégation bu rëy from Sénégal so loolu li ma wane rek mooy diggante Sénégal ak Gambie ni mel seetut ne award yi Gambie la du fa dem waaye ekkati na délégation bu topp te mu ngi am meeting on Monday waaye nee na dinaa ñëw fekkee benn bés bi dimanche ma delluwaat loolu li moo wane rek mooy diggante Gambie ak Sénégal ni mu te ñun ñu yaakaar ne noonu la war a mel ci diggante ni mu mel ci réew yi ci gox government yi noonu la war a mel ci nit ñi tamit te man it suma nit ku baax la te ñu waxul leen ko waaye li bari dama ko dee console dama ne wax ak moom parce que yéen soo nekkee ci sport secto bi nga nekk ministre boo bëggee yenn kii wax na lii kii wax na lii la soo bu demee ba xalaat jafe tuuti moom laa dee koor ma ne ko ah ma ne lii laa ci de lan mooy sa advice mu advice ma council ma wax ma li moom fi mu jaar parce que eight years mu ngi nekk ministre dem na World Cup dem na African Cup of Nations dem na fu nekk so lim advice moo of the time loolu laa dee gëm ne mooy lu jaar yoon ma def loolu so Mom is one of my mentors since bu ma nekkee ministre in the last three years and every time dañ dee consult yeneen suñ buggee dara sax ma kool ko ne ko lii lañ soxla and then mu jàppale so this is uh, noonu la Gambie ak Sénégal war a mel so ñu laa gërëm uh, monsieur le ministre di gërëm High Excellency First Lady for coming to witness this event uh, xam naa ne moom tam am na bi sis kërl waaye ñëw so képp ku daal xam ne ñu fii ñu ngi laa gërëm di leen sant ko once Um, congratulations to all the nominees um, jarul ñuy mention tur waaye kontaan nañ ci képp koo xam ne nii ñu ngi fi ñu wish leen a good night ak uh, happy dinner thank you.